aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyoo di ziar di ñaanal sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi loolu te wér di sant yàlla bu baax di sant kilifa yu nu bokkal jataay bi taxawaay bi ci liggéey bi nga xam ne Touba ca kanam def na ko ci ron kilifteefug sëriñ Muntaxa Mbàkke ak kilifa yi Touba ca kanam yi sëriñ ab sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Abibou ak mboolem kilifa yi fi taxaw di euh, nuyu sëñ Alaaj Njaay mi fi teewal mairie bi ak sëñ Xaari Jaxate mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Mamor ci wàllu daara yi ak waa rabitatul madaarisul Quraan ak mboolem ñi fi teew ñëpp di euh, tàmbali rek ci ne euh, Touba ca kanam bi sëñ Muntaxa yëkkatee loolu mu yëkkati jox ko état tam tolloon ci 200 millions woote woon ne ku ci man na na ci murid yëpp dugal loxoom boobu la ci Touba ca kanam tàmbalee waxtaan ak xool yan yoon lañ koy jaar niñ ko baaxoo defee nag bu ñu amee ndigal ci sëñ Mountakha mu wàcc ci sëñ Abibou jaar ci sëñ Abdou Lahat agsi ci Touba ca kanam dañuy waxtaan organiser ko ba teg ko ci aw yoon ci biir loolu dem nañ gis district sanitaire bu Touba waxtaan ak ñoom jël seen i xalaat ak seen i orientation dem ci sous-préfet ànd ak moom dem ci préfet bu Mbacké bañ demee ñu waxtaan ak ñoom tamit déglu leen dég jël seen i orientation ci leen nag daal di kon sóoboo ci liggéey bi li nga xam ne nag tàmbalee nañ ko te muy tàmbali boo xam ne dañuy ñaan yàlla mu bañ a àgg tàmbali yëpp yi ci ëpp ñaari ko koy def da ngay ñaan li ngay tàmbali àgg waaye tàmbali bi moom dañuy ñaan mu bañ a àgg ndax li ñuy ñaan mooy li li ñu tax a jóg li ñuy xeexal teel fee jóg ci barkeb sëriñ bi ba xeex xeex bi ñuy xeex ak moom du àgg tàmbali boobu nag 45 euh, millions lu toll ne 45 millions ci xaalis lañ yëkkati def ci wante ni ñu xam ne liggéey Touba ca kanam ñaare somme bi ñuy wax ne moom lañ ci def foo ko fekk da koy ëpp da koy ëpp ndax la ca waroon a ànd ci li ñu war a fay ci ay nit ngir ñu taxawee ko yooyu yëpp lu ñuy jaayantale liggéey lu ko sëriñ bi kon ku ko doon xayma dana romb fop 45 euh, millions yooyu ñuy wax 45 millions yooyu ci biir 45 millions yooyu nag li nga xam ne moom lañ ci waajal ngir fas yéene koo jàppalanteeg waa dëkk bi ak service yi nekk ci dëkk bi tey liggéeyal dëkk bi euh, toll na ci dañ cee toll na ci lu mel ne li ñuy wax euh, saabu ndox ndax bi ñu waxtaanee ñoom dañoo gis ne bu dee saabu saabu bi nekk saabu ndox moo ci gën ñu jënd ci lu tolloog ñaari junni carton nekk 24000 bouteilles 24000 bouteilles jënd nañ ko ci bu dee eau de javel jënd nañ ci 1000 carton nekk 12000 bouteilles. bu dee euh, gel bi ñu def ci loxo gel antiseptique yi. jënd nañ ci lu tolloog 3312 flacons mais yooyu du yu ndaw jënduñu yu ndaw yu mag yi lañ jënd ndax dañoo bëgg fépp fu ab flacon nekk rek ñu bari man caa man caa jariñu euh, jënd nañ tamit euh, li ñuy wax dioxyde de chlore produit désinfectant la boo xam ne day rey doomu jàngoro ndax ànd nañoo ak waa service d'hygiène pour fas yéene pompe dëkk bi yëpp ci bërëb yi nga xam ne mbooloo yi dañ fay daje ci jumaa yi ci morgue yi ci marché yi ci gare routière yi ba nga xam ne fépp fu mbooloo yi daje. ngelaw li ñu noyyi moom danañ fexe ba pompe ko ba doomu jàngoro ju ci nekkoon ñu jëm ko ñu jëm koo rey loolu tamit def nañ ci lu tolloog 27000 litres loolu bu ñu waxee tubaa day yóbbaale li wër dëkk bi euh, masques yi ñuy takk am nañ ci commande deux 2000 masques ndax personnel bi war di liggéey liggéey boobu dañ leen ciy jox donte sax niñ ko xamee fi mu ne man dafa jafe waaye commande bi jàpp nañ ne li ci am na ci lu ñëw am na ci loo xam ne balaa ñuy tàmbali liggéey dina ñëw wala ci biir liggéey dinañ ko jot appareil nga xam ne moom la ñuy yor di ko pompe euh, waa service d'hygiène am nañ ci ñaar yu mag ñun ñoo leen di jox oto ñu aj ko ci kaw oto yi def liggéey boobu waaye bu dee yeneen yi nga xam ne nag yan ruq-ruqaan yi oto mënut dugg yooyu am nañ luy tolloog fukk juróom-benn appareil yi nga xam ne dañ koy téye ci loxo yooyu am nañ ci yoo xam ne appareil essence la am ci yoo xam ne appareil manuel. Euh, ba tey lu jëm ci daaray alquran yi ndax ndimbal yaa ñu wax léegi danañ ñëw ci naka lañ koy séddalee waaye waajal nañ tamit luy tollook mille deux 1200 saagi ceeb yu 25 kilos. carburant bi nga xam ne moo war a def liggéey bi yëpp préparé nañ ci luy tolloog 3000 litres ay produits phyto sanitaire tamit am nañ ci benn loo boo xam ne dina man loolu yëpp diirub liggéey bi nag fu ñu ci toll bu ñu demee ba gis ne laaj nañu yokk ko dinañ ko yokk léegi nag ñu ñëw ci naka la ñu xalaatee séddale bi daaray alxuraan yi lañ ci jiital ndax xam ngeen ne dëkk bi dëkkub daara la dëkkub alxuraan la te Serigne Touba la ñuy liggéeyal moo tax ñu ne ñu tànn luy tolloog junniy daara ànd ko ak sëñ Mamor mi nga xam ne moom la sëñ bi teg daara ci loxoom ak waa rabitatul madarisul quran yi ñoom ñoo xool nan lañ koy organiser daañ leen jox luy tolloog 1440 euh, bidon ndoxu saabu nekk 14400 euh, nekk 1200 1200 cartons 14400 bidon lay doon nekk 1200 cartons. carton ndoxu saabu bu dee eau de javel bi danañ leen jox 600 cartons nekk 7200 bouteilles euh, ñoom loolu lañ leen di jox dolli ci nag junni ak téeméeri saaku ceeb yu cinq kilos. bu dee jumaay Touba ji ak li ko wër bu ñu waxee jumaa ji li ko wër mooy kër njabootu sëriñ Touba gi ko wër te am ay barab bi suturlukaay yoo xam ne nit ñi dañ fay faral di dem boole ci morgue bi boole ci kër sëriñ Touba gi boole ci tamit armée lu Baqiya dinañ leen jox lu tolloog 228 cartons nekk 2736 bidons jox le ci ci ci saabu bi eau de javel bi ñu jox leen ci 112 cartons nekk 1344 bidons gel bi ñuy def ci loxo yi ñu jox leen ci 50 cartons nekk 600 bidon di fàttali na gel bi tamit bidon yu mag la ñuy joxe joxe wu ñu ndaw bu dee yeneen jumaa yi nga xam ne ñoo ci dëkk bi jumaa yi ñuy a eh, juma jàkka yi bokk ci ndax jàkka yi lim bi kenn xamul nu mu toll jumaa yooyu juma euh, jumaa lañ yoo xam ne dañ ciy julli jumaa yooyu danañ leen jox 120 carton saabu mu nekk 1440 bidon ñu jox leen 60 carton euh, eau de javel nekk 720 bidon jox leen 120 carton gel nekk 1440 bidon morgue yi ci dëkk bi recensé nañ ci li toll ak juróom-ñett dinañ leen jox 15 cartons saabu 180 bidons jox leen 15 cartons javel 180 bidons ak 12 cartons gel nekk 144 bidons. structures sanitaires yi nekk ci dëkk bi hôpitaux yi centre de santé yi poste de santé yi ba ci case de santé yi recensé nañ ko yii yëpp nag bu koy def dañuy ànd ak ñi nga xam ne ñoo ko xam luy tolloog 40 structures yooyu dinañ leen jox 208 cartons savon nekk 2496 bidons 86 cartons javel nekk 1032 bidons. jox leen luy tollook cinquante ans et carton gel nekk six cent douze bidon résidence euh, Cheikhul Khadim bi nekk Daarul man naan bërëb la bu ñuy wàccee ay gan euh, ak résidence Cheikhul xadim bi nekk ci yoonu garas Daaru Musti dinañ leen jox luy tolloog quinze carton euh, quinze carton saabu jox leen luy tolloog dix carton javel luy tolloog quatre carton bu ñu ñëwee ci centre d'isolement bi nekk héliport te état wu Sénégal def ko fi ngir ñu di ko waajal am na sax benn mm, hôpital mobile bu fa militaire yi yor xalaat nañ leen a jox quarante cartons savon nekk quatre cent quatre vingt bidons vingt cartons javel nekk deux cent quarante ak dix cartons gel nekk cent vingt bidons. orphelinat kër Mame Diarra mooy kër gi nga xam ne ci la ñuy denc jirim yi ak baayo yi ña koy taxawee dañ leen jàppale ñoom tamit dix cartons savon nekk cent vingt bidons cinq cartons javel nekk soixante bidons ak trois cartons gel nekk trente six bidons. Euh, force de défense et de sécurité yi nekk ci dëkk bi gendarmerie police pompier service d'hygiène euh, nekk euh, ñu wut ñu xayma ne ñoom huit lañ boo ci boolee escadron ba la ca sorti ba danañ leen jox soixante soixante huit cartons savon soixante huit cartons savon yi day nekk huit cent seize bidons trente quatre cartons javel nekk quatre cent huit dix cartons gel nekk cent vingt bidons. biir marché Ocass am na jàkka ju fa nekk joo xam ne bërëb bu mbooloo di dajale dañ fay jàngee alquran. di fa jaay ay téere yu ni demee danañ leen jox deux cartons savon de 24 ak benn carton de 12 bu javel ak benn carton de 12 bu gel. loolu mooy li nga xam ne moo aju ci ni ñu ko bëgg a distribuer bu ko defee euh, ceeb bi danañ ci bàyyi luy tolloog 100 sacs ak la mu war a àndal ngir bépp kër goo xam ne dañ ko mettre en quarantaine wala bërëb bu ñu mettre quarantaine te ñu soxla ku leen jàppale ci ci ab dund loolu tamit bokk na ci li nga xam ne waajal nañ ko kon loolu mooy li nga xam ne euh, tënk nañ ko. am nañ ay réunion nag yu bëree bëri suñu digganteeg waa service d'hygiène ñu ngi nuyu euh, capitaine sëñ Fallou saar mi nga xam ne boobaak léegi mi ngi wane disponibilité am ak jàppandem bay bay bay benn ci biir mbooloo mi ñoo ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax nga xam ne ñoom seenub liggéey fas nañ yéene mu tàmbali tey bu ko defee nag ci biir loolu kon ñu maase xam ne mbooleem euh, respect yi nga xam ne wax nañ ko te mu jëm ci sàmmonteeg ak cet te mooy sabab yi nga xam ne moom la ñu lislaam sant jaar ci sabab yi te wakkirlu ci yàlla loolu sax day mel ni bu ngeen xoolee carton yi loolu lañ ci bind Touba ca kanam bi ñuy préparé lii te sukkandikoo ci waxi Serigne Mountakha dañ ne nañu jaar ci sabab yi te wakkirlu ci yàlla ci loolu nag ci la ñu tàmbalee lii ngir duggee ko ci sabab yi di ñaan yàlla mu mu bañ a mu bañ a law waaye ci ñi nga xam ne jàpp nañ ñu jàppale nañ ñu ci liggéey bi euh, Touba ca kanam moom buñ ko waxee mooy ñoom mm-hmm. waa Touba kanam gépp la ñuy maase sant ci seenub taxawaay ci seenub taxawaay ndax képp koo xam ne yëkkati nga saw ñaar téeméer dugal ko ci Touba ca kanam na nga xam ne lii ko def foo mën a nekk waaye danañ beral ak cant uh, waa diaspora bi xam naa loolu ku mel ne sëñ Abdou Lahat wala sëñ Abi bu ñu jëlee kàddu dana ci gën a ñëw waaye lañ cay wax rek mooy ñoom dañoo nekk ci uh, jafe-jafe yu metti ndax tukki rek doy na jafe boo ca dollee lu mel ni ñëw daal ci sa kaw ak tumuranke ak jaaxle da ca daal di dollee ko waaye ñoo ngi leen di ànd ñoom di leen masawu waa diaspora bi yëpp nag rawatina ñi nga xam ne nag ñooy représenté Touba ca kanam ci àdduna bépp ndax kat euh, lépp lu Touba ca kanam am lu ëpp fanweer ya ci téeméer boo jël ci diaspora bi la bàyyi ko kon ndimbal yi ñu dajale tey jii di ko jàppalante ak waa dëkk bi bu doon téeméer a fanweer ak nangam ci diaspora bi la bàyyi ko ñu mat a sant lañ ñu mat a lañ ñu mat a gërëm lañ établissement bu ñuy wax nay Naïda Fito nay Naïda Fito moom jàppale ne waa Touba ca kanam bu baax a baax ndax yónnee na fi lu am solo ci ay fito phytosanitaires yónnee fi ay pompe ya nga xam ne ay pompe euh, super la ay pompe manuelle ba bari bagage yi ngeen tiim bari na ci loo xam ne ñoom ñoo ko yónnee sëñ Xarim Fall may jëwriñ jë ñoo koy sant bu baax di ko gërëm soxna maam Xarim Mbàkke tamit dugal na ci loxoom waaye euh, ministre Dame Diop jaarale na luy cent mille ci député Sadaga mu agsi ci Touba ca kanam kon daal loolu ci tënk bu ñu amut euh, lu ñu fàtte te xëy na ñi ñëw ci suñu danañ ko mën a mot li kon loolu mooy li nga xam ne moom nañ ci bëggoon a jot li euh, duma jeexal nag mukk santuma autorité locale yi ñu yu ñu àndal liggéey bi ak seen disponibilité ñi nga xam ne ñoo ci yor service yi tàmbale ko ci sous-préfet mi jamono bu nekk bu ñu amee lu ñu soxla bu ñu ñëwee ci moom da ci def ak jàppandal ànd ceeg ñu ànd ñun te buñ ko tuddee mën naa yóbbaale waa district sanitaire bi mën na yóbbaale ñeneen des service d'hygiène nag ñoom ñëpp mën a yóbbaale waaw koy euh, liñ ci waroon a dolliwaat tamit di fàttali ne Touba ca kanam ànd na ak waa mairie bi ànd na ak waa service d'hygiène encore àndaat ak waa UCG ànd ak waa assis marché Ocass bi ak délégué ak délégué marché bi ngir préparer mbalem marché Ocass bi euh, alxames lañ ko bëgg a tàmbali ak àjjuma ndax dañoo bi ñu waxee ak ñoom waa service d'hygiène dañoo wax ne bu ñu ñëwee directement rek désinfecté te seetaluñu du am njariñ dañuy seetal ba noppi doog a désinfecté moo tax ñu préparé ko démb rek am nañ ci réunion ba tënk nañ ni mu war a demee yëpp incha allah danañ ànd ak ñoom ñëw seetal marché bi ba mu set wecc bu ñu noppee ñu doog ko désinfecté ndax marché bi day lieu boo xam ne dafa bokk ci bërëb yu kii yi. Euh, fi ñuy jeexale rek kon di euh, jaajëfal président de la république waaye nag di ko yóbbante wala di wax kàddu yoo xam ne ci moom laa ko jëmale dañoo gis ne euh, nattangoom bii di Paul Kagame da ko lancé ab challenge da ko yónnee ay kàddu ci nekkoon na wana misaal ci ni ñuy raxasoo muy lu am solo mu jóge ci jël ay matuwaay yu am am solo ci population sénégalaise bépp. ba sax ñu nekk actuellement ci état d'urgence ay matuwaay yu am solo la li ma ko yóbbante nag ci challenge boobu ma dama ko ci dollil beneen challenge di ko ñaan nag mu relever ko mooy na na ci boole ay journée de prière wala ay semaine de prière fexe ba sénégalais yi rajo yi tele yi ak manifestation yeeg jàkkee yeeg jumaa yi yëpp ñu di ko delloo ci yàlla ndax ñun ñëpp maase nañ xam ne lii ñuy def ni diggante euh, temporel ak spirituel ñoo mas di ànd li ñuy def nii xëy na mooy lu temporel li spirituel mooy ñaan yi nga xam ne mooy zahir ak baatin foo fekk ñooy ànd te mboolem àdduna bi am nañu jaaxle am nañu tiit jaxasoo nañ am nañu àgg ci ne mboolem lu ñu xalaatoon mboolem lu ñu amoon ci ay jumtuwaay jeexal nañ ko te mënuñ ci yëf yi dara nun dañoo am leneen loo xam ne dañ ko cee war a dolli mooy delloo nit ñi ci yàlla ñu maase ñun ñëpp tuub salaan si boobu faw njiitum réew mi da ko war a jiite woo ci ñëpp ñu maase ci tuub balon tey àq di sakki sarax te yàlla rek tax fépp foo xam ne fu ñuy teg ay ay ay ay folklore la mbaa am fo moo xam ne ñuy seetaan la wala lu ñuy déglu ñu dindi ko maase delloo suñu bopp ci yàlla ndax yàlla mi am kattan ba dugal jàngoro jii nga xam ne ci àdduna bépp la ko wàccee te benn bët mënu koo gis bëtub kese ngir dafa tuuti benn bët mënu kenn du gis ak xetam wala mu déggu yëngoom ngir dafa tuuti te teewut mi àdduna bépp ngi taxaw ne dañuy def guerre mondiale guerre koo gisut guerre koo déggut guerre koo xam ne doo ko doo la xeeñ du bu yomb kenn doo nga am mooy ki nga xam ne ni mu ko sàkkee mu tuutee noonu la sàkk yi ko ëpp fopp te loolu astron astronome yi physiciens yi duñ dañ ci di ko wax wax nañ ne euh, adduna bi li ci yàlla sàkk ci ay ay dënd mu ñuy wax ay planète moo ëpp nombre la fépp suuf yi univers bi boo ko doon mesurer kenn xamul ñaata milliards d'années euh, ñaata euh, milliards d'années de lumière la te benn atu lumière bu nekk neuf mille milliards de kilomètres la adduna bi am na ci distance xam ne kenn xamul nu suñu adduna bii ñu nekk di ci dund boo ko dugaloon ci biir univers bi day seey comme poussière lay toll yàlla mi am kattan ci sàkk lu ndaw noonu la amee kattan ci sàkk lu mag te bu set ñi nga xam ne ñoo yëngu ci ci ci science dañuy wax ne li ñuy wax super supernova day am mooy ay àdduna yoo xam ne day dem ba seen dundu jeex mu explosé toj yàlla am na kàttan ci jële fi àdduna bi te du ko wàññi dara ndax jëriñuñ ko dara bu ñu xamee loolu nag dañu war a delluwaat ci moom xam ne lii lépp moom la te buñ ko tuubee jégglu ko mu jëlee ko fi te loolu njàngale mi alxuraan la wasalaamaaleykum wa rahmatullah